Portugal qualifié na ci quart de finale euro bi gannaaw bi mu dóoree Slovanie ci penalty ñu gis na kat ki nga xam ne mooy Cristiano Ronaldo ak i àndandoom jege woon nañu lool ngir génn ci compétition bile waaye nag mujjee nañu rëcc gannaaw bi ñu gañee ci li nga xam ne mooy tiro but ya match bi nag joué nañu 120 minutes ndam demul ndam dikkul waaye nag ñu gis ne ci li nga xam ne mooy prolongation yi lu bëree bëri da cee xew Portugal mënoon na jël but ci li nga xam ne mooy benn occasion boo xam ne ñii di waa Slovanie amoon nañu ko ndax ki nga xam ne mooy Kepalema Pepe dañ ko passe ballon bi nga xamne mag la magat na amna ñeen fukki at ak ben wala ci yoy jamono xëy na coono jàpp na mu daldi saggan ba bal bi recc ko ñu gis ne ki de benjamin sesco dal ñak li nga xamne moy jakarlo bobu nga xamne ne wan la won digentem ak ki de jogo costa lolu moy li nga xamne moy ndam li recc ñi di waa slovanie ñoom mën nañu gis ne gañu won nañu match bi sax waaye sen ak càggante xëy na tax ba gañu won jogante gogu ci occasion bobu nga xamne bi muy xew sax bobu match man mën nañu wax ne danaka jeex na la ci bari wul waaye nak ñu gis ne ki nga xamne moy jogo costa bobu nga xamne mo ballon boobu yemul ci loolu nga xam ne moom la def am na yeneen i jaloor yu mu def ci biir match bi waaye itam fi mu gën a fesee mooy ci penalty yi nga xam ne fa la Portugal da di jàllee ndax kat ñoom ñoo dugal ñett ñoom waa Portugal Slovénie dugaluñu dara te nag amul ci benn bal bu ñu dóor mu dem ci kaw wala bokk mu génn ca biti yëpp ki nga xam ne mooy Diogo Costa moo ko dal di jàpp moom gardien wu Porto bile kon moom sax la ñu dal di tànn def ko homme du match ndax bu fekkee Portugal qualifié na moom la ndax Portugal amoon nañu penalty ci li nga ne mooy biir match bi Cristiano Ronaldo dal di koy boobee gis nañu mu doon jooy jooy métti bi mu ratee li nga xam ne mooy ballon boobu nga xam ne mënoon nañ ci am ndam waaye ñu gis ne ki nga xam ne moom la wax Jean Oblak muy gardien wu Atlético Madrid bi da koo daal jàpp loolu nag nekkoon loo xamante ne naqar la woon bu métti pour Cristiano Ronaldo waaye bi ñu dellu ci jogante gi ci la waa Slovanie am occasion boobu ma leen di wax waaye ñu mit dugaluñu ci penalty ya la yëf yi li nga xam ne mooy euro bi ba léegi dugalagul ci biir match ndax bu ñu xoolee fukki tiir ak juróom dal dina koy cadré waaye dugalul ci dara moom Cristiano Ronaldo mu mel ni daal ay buntam tëju na ñu gis na nag mu amoon penalty am chance dugal ko ba tey dal di koy rëcc loolu di wane rek li nga xam ne mooy ay jafe-jafe yi muy dund jamono bile ngir dugal ab but ak équipe am boobule di Portugal mag la nag mu ngi ci fanweeri at ak juróom-ñeent ba jogante gi jeexee nag dal dinay xam ne carrément ne bii mooy Europe bu muj boo xam ne voilà war na ci football ak nji di waa Portugal voilà waxul nag kañ lay tekki daal di waaye nee na bii daal mooy Europe bu mujj Europe wax xëy na mooy mu ngi koy waajal wala mu bàyyi avant avant ñu yegg ci loolu loolu yépp mën na xew li leer daal mooy Portugal qualifié na kon ci quart de finale yooyu le war ci daje nag ak France France la Portugal wara a am ci li nga xam ne quart de finale yi mu nekk match boo xam ne démb déggoon ngeen ñu leen di wax match bi nga xam ne war a dox diggante Allemagne ak Espagne waaye bii moom momit match la boo xam ne day ñu bari dinañu ko xaar ndax ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé la ak Cristiano Ronaldo Mbappé nag xam ngeen fi mu tollu Cristiano Ronaldo wala bokk fi ko Cristiano toll ndax gis nañu ne moom daf ko yàgg topp yàgg ko follow voilà yàgg ko roy ndax kat mom dippi mu nekk xale ci la commencé topp Cristiano Ronaldo daan ngeen gis ay image yo xamne ay photo Ronaldo la doon jël taf ko negam ba mu daj ak yenen photo yo xamne gis ngeen ko ñom ñaar ñu am ko mu nekk xalé lol kon yag na ko bëgg waye gis nañu ne tay jilé Mbappé mu ngi ci digg dolem Ronaldo mu ngi ñew magat ci wéri at ak juroom ñent ñom ñaar ño wara jëno kon ci li nga xamne moy aljuma bi ñu dëkk man wala aljuma la match bobulé ñu gis na aljuma ji kon amna ñaari match yo xamne warna am ci li nga xamne moy quart de finale yoy lé benn bi mu ngi wara dox digënté Espagne ak ñi di wa Allemagne wala bobu moy way bi ci top moy digënté ñi di Portugal ak France kon lool moy li nga xamné moy aljuma bi ñu dëgmal la 5 kon dina dekk bis bo xamné day dina tang jër wala ci li nga xamné moy walum Europe la ndax ñaari match ben bu ci nekk rek amna dayop final lool moy li nga xamné man nañu ko jangat ci quart de final yooyu kon ñetti match taxogum na ben mo dess lool mom dina leer suba wala ci digënté Turquie ak ñi di waa Autriche way tam ñi di Hollande ak Roumanie match yo ñu ngi koy xaar ni ki suba ngir dal di ndar képp lu aju ci li nga xamné moy quart de final yooyu Serigne Souhaibou Mbacké borom xam-xam la bu Yalla may ci walu ñaan képp ko da danga am jafe-jafe wér-gi-yaram rawatina jàngoro yi nga xam ñoo jamono bi lu ci melni ni ndoxum city bi nga xam ne daanaka gis ma ngi doxantoog mom mo xam ci ay tankam lay feñ wala ci kawaram wala fu mu mëna feñ ci yaramam serigne bi fay fajj lolu nga xam moy ndoxum city Serigne Souhaibou dina fajj ba ci sax new katan di jàngoro ji lembé lool ci kër yi sonal lool borom kër yi mo xam góor gi nga xam ne yegg wala ki nga xam da fay gawa yegg solution bi Serigne Mbacké la jokol ak mom mu lijjanti mbir ci sutura nga dal di sant yàlla sëriñ bi yamul ci lolu képp ko da danga bëgg ko ci wërsekk wala li nga bëgg moy bay bayre ba ci kaaraange am na jaarub bayre am na jaarub ubbeeku ci wàllu wërsëg ba ci jaarub kaaraange sëriñ bi dina defar ay fas fas yoo xam ne dina dimbale jigéen gi nga xam ne dafa taxaw maanaam mënul am doom ba ci listixaar maanaam seet say mbir càmbar ko ba nga xam fi ngay teg sa tànk yii ak yeneen sëriñ bi yàlla may na ko ci comme ñëpp dañ ko yittewoo nag sëriñ bi dafa yombal seen mbir am na ñetti bés yu muy def Dakar ci semaine bi képp ko di 78 89 61 Voilà 77 328 72 31 bu ñu jógee ci loolu dinañu wax ci transfert itam ki nga xam ne moom la ñuy wax Sanusi Ba Sanusi Ba nag nekk koo xam ne ci RB Leipzig la nekkoon voilà moom mën nañu gis ne ab doomu Sénégal la bu nekk foofule bu am xarañte waaye dafa dal di jógee foofu la nag dafa jógee foofu la ca Red Bull Leipzig jamono bii dal dinañ signé ak club bi ñuy wax Eintracht Braunschweig foofu la daal di signé voilà Eintracht Braunschweig ba tey foofu la ci Allemagne dal dina fay dem danañu xam ne sax day benn doomu Souleymane Sané mu ngi fay footballé muy kooku ñuy 2027 moom kooku ñuy wax sanu si Ba ki nga xam ne nag moom la wax Ismail Jacob Seck moom nag xam ngeen dafa amoon gaañu gaañu bu doy waar sax xam ngeen ne bokkoon na ci li nga xam ne mooy tàggatu di waajal li nga xam ne mooy saison bi lee voilà li nga xam ne mooy pré-saison yi xam ngeen mooy këlëbam boobu di AS Monaco Monaco N'Golo Kanté moom nee nañu fi mu dafa dugg ci histoire ndax kat daal dina daaneel ki nga xam ne mooy Xavi Hernandez record bi mu fi bàyyi woon ndax kat dañoo gis ne N'Golo Kanté dafa dal jouer lu toll ci match moo xam lii di Euro la wala mondial ak yu ni mel yoo xamante ne France ñàkkul ci benn moom N'Golo Kanté loolu nag nekk loo xam ne nee nañu mooy bi gën gudd boo xam ne ab joueur dal na koy def foofu la ci Europe bu ñu xoolee ci fukki jongante juróom-ñeent yooyu la fukk yi ak te maanaam 13 yi France da ko gagné 6 yi am li nga xamante ne mooy match nul kon fukki jongante juróom-ñeent yi nga xam ne Ngolo Kanté mujjee na ko football ak équipe nationale bu France ñoom waa France ñàkkuñu ci benn te lool nag moo daaneel recordu Xavi Hernandez moom kii di Ngolo kon jamono bi moo nekk ci kawam bu ñu sukkandikoo kon ci taskatu xibaar yi moo ngi noonu gars yi loolu mooy li fi gënoon fees way leen di topp Sen Sports